lay doon seere rek li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha waxtu wu mu di ko seere ci njabootuk Cheikh Mouhamadoul Fadil yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko waxtu wu nekk mu naan leen fu ma leen gisee rek dolli ko waatuk so roy ci yéen waaye du ngeen ko roy ci kenn te loolu njabootu Sëriñ Tuubaa gépp mën nañ leen ko seeral kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal ngeen yàgga taxawee bis bi te day ceeg ngërëmu sëriñ bi li tax waxtu yu gàtt nag wax ji nar a gàtt mooy fi mu dugg ak li tax ndax xam ngeen ne biig la laylatul israa wal salaatu imaadu diini fa man aqaamaha fa diin borom bi bu tedd bii itam di Cheikh Mahamadou Fadil bokk na ci ndax moom léppam xarxoon aada waaye la ci gën a fés mooy barab bu tedd bii di jumaa ji nga xam ne mooy ramsu bi gën a màgg ci yoon wi te Serigne tubaa digle woon ko mu jël yitteem jëpp jëmale ko ci jumaa ji ba yàlla def mu àgg mu sànni ca bayitam yu tedd yooyee kama xad kunta taamulu yaa xadima bihi hunni ta fi daari naimi fa kun fi nicmatin abadan muqiman muaafatan muaafan murs ibarat uxra ñu bari dañuy wax say sayxal xadimi waaye seyxul xadimi day mel moo gën a wér kon Cheikh Mamadou Fadil li Serigne Mouhamadou Mamoun Mbacké wax léegi waxe ko ci fasaxaat bu leer boo xam ne dara mënu ca dolli ko ku doon waxaat nii ba suba it mënoo génne borom bis bi waxoon rek laay waxaat damay féetewoo ne galas rek ñu ñaan ñu teewe ko ndegeen déwén jàmm te day cee ngërëmam di siyaare Serigne Abo ak mboolem rakkam yu tedd yëpp ba ci Cheikh Abdoul Fatah Mbacke bi nga xam ne mooy yor kàddoom di jëwriñam ci bis bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.